assalamualaikum ko ndu Saly Escale mang ngi leen nuyu bax dina jaar man la Amadou Nguer jog wa gis ngeen li de yamang la xewé ni wa urgent légui légui légui ni sax ben plateau bu fi laal benn xalé taale bi wallaay gis nga tay mom doomu yamang yëpp genn nañ vraiment wallaay ñepp ngi ci tali bi nii gis ngeen ni tal ni wa tal nañ de duudaan mom wax deug fi yalla fi dafa war am duudaan de dafa war am ndax comme numu ko doon waxé rek pile de fukki at say moy loolu 5 mois xam nga tay gis nga ko mooy loolu amati na fi yemoon voilà wax dëgg yàlla na trop vraiment.